mbokk internet yi safoo setaan AGT News daleen ak jàmm suñuy jàngatu tey bi abonné leen ci suñu chaîne saa su ne ngeen di am ay xibaar aki jàngat yu wér te wóor Cheikh Bara Ndiaye ñëwoon na ca manifestation ba nga xam ne moo amoon ngir ki nga xam ne moo di Pape Alé Niang moom nag yëkkati na fa ay kàddu yu amaa am solo yoo xam ne moom lañ leen fas yéene dégtal moom Cheikh Bara Ndiaye mu ne ki nga xam ne moo di Pape Alé Niang li waral tey ji jàpp biñ ko jàpp du lenn lu dul président Macky Sall ak i ñoñam dañoo yaakaar ne Pape Alé Niang dafay liggéey ak Ousmane Sonko Pape Alé Niang dafa far ak Ousmane Sonko Cheikh Bara Ndiaye mu ne ñëpp xam nañ ne kii di Pape Alé Niang andul benn yoon ak président Ousmane Sonko dafa fekk rek ne ñoom ñaar la ñuy wax dafa tombe te dafa nekk nitu dëgg usmaan Sonko itam nekk nitu dëgg moom Pape aleña Niang ñëpp xam nañ ne bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi Cheikh Bara Ndiaye que ne dafa mës a ànd ak képp koo xam ni da nga bëgg Sénégal ndax moom mbëggeel ci Sénégal kese moom moo koy animé saa su nekk muy wax saa su nekk itam muy jëf. ndax moom mi ngi fàttali ne jamono ja nga xam ni Macky Sall Abdoulaye Wade mi ngi koy indil ay jafe-jafe moom Pape Alé Niang ma nga woon ci oto ba nga xam ne moo doon yóbbu Macky Sall ca tribunal ba en tant que journaliste. lu ni mel itam moo amoon ci Pape Alé Niang ba ñuy yóbbu ki nga xam ni moo di Idrissa Seck jamono ji muy am problème ak maître Abdoulaye Wade. kon moom Cheikh Bara Ndiaye muy wane ne Pape Alé Niang il a toujours été là pour défendre les intérêts mais il a toujours été là aussi pour défendre la vérité nag moo ko dugal tey jii fee nga xam ne fa la nekk te vérité boo xam ne kenn waru cee tëj kenn ndax moom Pape Alé Niang ab liggéeyam moom moo ko may à que muy génnee lépp loo xam ni daf di ab xibaar gannaaw ba mu defee ay investigation ba daal ci am lu ko leer exactement Cheikh Bara Ndiaye nag mu ne lu ni mel faw mu jeex ci Sénégal ndax ki nga xam ni moo di la président Macky Sall moom yaakaar na ni réew mi moom moo ko moom réew mi lu ko neex la fiy def waaye nag loolu dafay jeex te da koy dindi amul dara loo xam ne moom mën na ko ci il faudra que sénégalais yi am ci fulla ak fayda nag daal di ci ànd ak li nga xam ne moo di détermination ngir wan le président Macky Sall que ne suñu réew mi bëgg nañ koo toggaat soppil ko doxalin ndax nag njiit gi nga xam ne moom moo fi nekk ni muy doxalee dafa noot sénégalais yi te amul benn liberté boo xam ni nit ñi ñu ngi koy am moo tax Cheikh Bara Ndiaye ne Pape Alé Niang àndul ak Ousmane Sonko dafa ànd ak dëgg ànd ak sénégalais yi sénégalais yi nag bu dee dañoo bëgg ñoom ñëpp ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko nañ def compa comparaison bi tout simplement toog di xool Pape Alé Niang leen naa ko yitteel mooy la vérité vérité bi nga xam ne nag moo tax moom tey jii ñu daal di koy tëj ndax loolu la génnee wan ko sénégalais yëpp ñu daal di koy gis ndax journaliste loolu mooy ab liggéeyam génnee xibaar bu kenn xamul mu daal di koy xam xamle te am na li nga xam ne moom da ko moomal boppam liggéeyam may ko ko mooy ay source am waru koo révéler te moom Cheikh Bara Ndiaye mi ngi wax naan kii di Pape Alé Niang bu fekkonte avertir nañ ko laata ñu koy jëli du ñu am benn mbir moo xam ni dinañ ko ko toppee ndax bu boobaa ay source am yëpp dina leen nëbb ndax journaliste am na droit am ay source waaye nag kenn amul droit di ko sërkatal te nañ bàyyi li nga xam ne moom la nekkee ci réew mi mooy ku ñuy jàpp rek duñ la indil convocation duñ la woo benn yoon dañuy ñëw bett la comme lañ ko defee Pape Alé Niang bam nekkee di defar li nga xam ni moo di gi nañ bàyyi li nga xam ni moom moo di nëpp nëppal gi ak parparloo gi li fi am mooy que président Macky Sall jaay doole la nekkee ci réew mi waaye nag faw ñu koy wax saa su nekk ngir sénégalais yëpp daal di koy xam nañu mobiliser wu nag ànd ki nga xam ni moom moo di Pape Alé Niang soutenir itam ñi nga xam ne ñoo nekk ñëpp ci kaso bi Cheikh Bara mu ne Cheikh Cheikh Oumar Diagne mi ngi fa Papito Kara ma nga fa Ousmane Diagne ma nga fa Abdou ngay Gueye xurum xaq ñoom ñëpp nekk ay détenus politique te dara waralu ko lu dul ñàkk ànd ak le régime présidentiel bi nga xam ne moo di bu Macky Sall àndul ak moom nag mu daal di jël ay coono yu bëree bëri daal di la koy teg waaye loolu duñ ko nangu duñ ko accepté ndax li nga xam ne moo ñeel Sénégal mooy que ne fii jàmm ak salaam dafay war di am saa su nekk ndax loolu lañ ñu xamee te nekk ñu réew moo xam ne itam kilifa yi dañ fay liggéey lu am am solo moom Cheikh Bara Ndiaye mu ne président Macky Sall na génn ci li mu nekkee ndax bés bu ko continuer dina nekk loo xam ne dina ko lor te dina lor itam ay sénégalais yu bëree bari ndax Pape Alé Niang a nii di dund loo xam ne du woon yoon mu koy dund ndax fee mu nekk du palaasam palaasam mooy mu dellu ci njabootam palaasam itam mooy mu delluwaat ci waa këram Cheikh Bara Ndiaye mu ne li nga xam ne moo ñeel mbirum presse amul parparloo goo xam ne war na cee am te bëri na fi ay journalistes yoo xam ne bu fekkente ne far rek la ñuy wax xanaa waa RTS dañ naan ñoom dañoo faree ak le président Macky Sall ndax moom la ñuy wane ay mbiram la ñuy wane te lu baax kese la ñuy wax ci moom télévision nationale la pourtant ñoom ñoo ñee fa nekk ci ay écoles yu mag lañ génnee def formation bu jaar yoon nekk ay journalistes de haute qualité pourquoi tey jii ñu ci bëri gisuñu leen ca fa nga xam ni moom moo di marche bañ doon def ngir Pape Alé Niang bi di sem naataango ab journaliste dafay wane ne kon bu fekkente ne par par loolu ñuy wax ci wàllum presse bi tey ñoom waa RTS ñoo fare ak le président Macky Sall waaye waruñoo taxaw benn yoon naan Pape Alé Niang dafa fare ak ki nga xam ni moo di le président Ousmane Sonko gis nañ fi benn émission bu amoon RTS Racine Talla boppam daal wane encore une fois que ne bu dee dañuy wax wàllum parparloo ci RTS googu lañ ko war a waxee waaye warul nekk ci ay journaliste yu mel ni ki nga xam ni moom moo di Pape Alé Niang Cheikh nag mu ne li Macky Sall di bañ faw mu am mooy que ne jeexal na te day dem te loolu mënu si lenn ndax atum 2024 mënul bokk ci ñi nga xam ne ñooy présenté wu ci élection présidentielle yi moom président Macky Sall mënatul bokk ndax jeexal na ñaari mandat yam fi amoon matal na ko troisième moom dañ ko fiy tere te ku ko fi bëgg a def di nga gis loo xam ni Sénégal yi dinañ ko teg ci sa kaw te bu boobaa boo fi jóge boo moytuwul sañ nga fee fàtte say daal moom Cheikh Bara Ndiaye mu ne nag Pape Alé Niang farul ak Ousmane Sonko dafa faree ak dëgg te Ousmane Sonko saa ne dëgg lay wax dëgg lay doxal Ousmane Sonko actuellement leader politique la boo xam ne sénégalais yëpp ñoo ko jox nopp sénégalais yëpp ñoo ko fonk bëgg ko moo waral Pape Alé Niang liggéey bi muy def nii sénégalais yëpp daal di koy apprécier daal di koy bëgg ndax saa su ne mi ngi génne xibaar yoo xam ne journalistes yi fi nekk di woote woo yëpp journaliste d'investigation bari fi lool nekk ñoo xam ne état bi rek lañ fi nekkal mënuñu koo génnee tout simplement parce que dañoo fare ak le président Macky Sall fare ak nguurab Sénégal waaye itam di défendre seen i ndax lañ fay am duñ ko wax kenn Khadim Samb génn na fii wax ko mu ne am na ci journaliste yoo xam ne fa may daje ak ñoom ci bureau ministre yi ak ci yenn service yi doy na waar lool te la ñuy jot ci ay xaalis xam naa ko te à une bi ñuy bind saa su nekk xam naa kan moo koy commandité ak kan moo leen sant à que ñu def ko loolee nag nekk na gàcce pour un pays comme le Sénégal nekk na gàcce ci suñoom réew nekk na gàcce ngir suñu ay institution nekk na gàcce ngir métier bi nga xam ne métier bu noble la mu di journalisme ndax journaliste war ngaa def liggéey boo xam ne dañ la ciy naw war ngaa def liggéey boo xam ne dañ la ciy jox cër comme ñoom Sidi Lamine nañ ko doon defee comme ñoom Babacar Touré nañ ko doon defee loolee moom mooy dëgg loolee mooy la nga xam ne war nañ koo gën a ñoŋal ci Sénégal comme Pape Alé Niang li nga xam ni noonu la koy defee ba tey loolu daal di koy indil jafe-jafe mu nekk fële nga xam ne moo di kaso bu si bi xotaan fam war a génn nag ndax foofu du place am place am mooy mu delluwaat ca Dakar matin di def mu waree di génnee loo xam ne daf di xibaar bu soxal Sénégalais yi lépp loo xam ne daf di dina amal njëriñ tous les sénégalais loolee mooy li nga xam ne nag faw mu am ngir Pape Alé Niang delluwaat ci njabootam ndax place su njabootam gële fa la war a nekk Pape Alé Niang ñi nga xam ni ñoom ñoo ko téye xam nañ xel ne deful lenn waaye nag puisque Sénégal dañoo nekk ci ab justice boo xam ne justice à deux vitesses la faw lu ni mel daal di koy dal moo tax nag képp koo xam ne rek da nga di ab journaliste am nga droit daal di ñëw ca boobu lépp manifestation jàppale ki nga xam ni moom moo di Pape Alé Niang waaye nag gis nañ fa tey journaliste yoo xam ne yu am fulla lañ yu am fayda lañ idi Cheikh Bara Ndiaye moom itam daal di fay teew yëkkati fa ay kàddu yu ama am solo ñeel président Macky Sall ak doxalinam waaye itam ñeel Pape Alé Niang ak solo bi nga xam ni def na ko ci Sénégal ba ñëpp daal di koy nawloo Pape Alé Niang nag nekkul faw ñu defal ko marche waaye itam faw ñu kaasal ko ngir fay mu nekk ñu daal di ko fay génnee ndax du place am il doit retourner faire son travail recommencer ses chroniques ndax moom ca Dakar matin foofu la war a dem ngir daal di mën a dégtal aux Sénégalais tout ce qui est vérité par rapport au président Macky Sall ak ndoxalinam ci biir réew mi. moo kenn tax noot yi sa fo setaan AGT News lii moo nekkoon suñu jàngat abonné leen ci suñu chaîne saa su ne ngeen di am ay xibaar ak jàngat yu wér te